nga xam ni itam ne fa tabaarakallaahu di feddali ku kóllëre gi nga xam ni itam ci mbokk la ci mbokk la mbokk nag ñaar mbokk nag ñaar la mbokk askan ne mbokk askan ak diine ak diine waaye ñaar yëpp waaye ñaar yëpp fa tabaarakallaahu daje na ci moom mii kii doomu kan la ne fa tabaarakallaahu jëmm ji doomu kan la hmm? ne doomu Serigne Touba la. ndax banu naa banu. ne ndax banu naa banu. ab naa foofu lay soqi. ne fa tabaarakallaahu foofii lay soqi ko. ne mook maamam daal ñoo fi toog. ak baayam. ak bi yëpp. ak fa tabaarakallaahu adduna bi yëpp. diine moom lañ leen xame. ne ndax ñoom ñiikat kat diine lañu leen xame. ne kon doomu diine lañu fa tabaarakallaahu sëtu diine lañu maamu diine lañu itam ne fa tabaarakallaahu moom lii mu defit lu rëy la lu bari ne dundal na lu bari lu yàlla bëgg la lu yàlla bëgg la lu mag ñi daan dox la lu mag ñi daan dox la itam li ñu wax léegi ci li ñu wax léegi ci suñu baay bu tedd ba Serigne Fadlu. Serigne Fadilu Mbacke radiyallahu anhu. fële ca Saalu Daara ja. ne fële ca Saalu Daara dafa ñëw ba toog. dafa ñëw ba toog. jël baaraamam. jël teg ci dënnu sëñ Abdou. teg ci dënnu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz radiyallahu anhuma. ni nee ni mbooloo mi kii. kana. ñu ne ko Abdou. ñu ni ko Abdou. mu ni juum ngeen. mu mooy laaj kii kana. Abdou mooy laaj kii kana. <laughs> noonu la ko laajee. nee noonu la ko laajee. mu ne moom mooy Abdou. nee mu ni moom mooy Abdou. Abdoy Fallou. Abdoy Fallou. bennoo gi yàgg na dañ cee judd. nee fa tabaarakallaahu bennoo yi dañ cee judd. ndax ca maam yàlla woon ndax ca maam yàlla woon. ba ci lislaam. ba ci lislaam. loolu di dox. nee loolu di dox. ba ñoom nekk. ba fa tabaarakallaahu ñu nekk fi. ba dem te demuñu. ba dem te demuñu. ndax ñoo fi des. ndax ñoo fi des. ah tilka asaaruna. nee tilka asaaruna. te dullu alayna te dullu alayna. fanzuru fanzuru. baadana baadana. ilal asaari ilal asaari. waaw waaw. ñi jeexitu Serigne Touba. nee fa tabaarakallahu ñii. jeexitu Serigne Touba lañu. dajeeg jeexitu Cheikh Al Hadj Malick. dajeeg nag jeexitu Seydil Hadj Malick. radiyallahu anhuma. ñëw ci seen kër. nee ñëw nag ci seen kër. dañ ñu koo dénkoon ñëw nañu. dañ ñu koo dénkoon ñëw nañu. leen marxaba. ñu ñëw ñu leen marxaba. waa ana li ma la dénkoon. waa ana li ma la dénkoon. ana diw. ana diw. ana diw. ana diw. moo waral mbooloo moo waral fa tabaarakallaahu mbooloo mii. lii bi ne lii daal yàlla na yàgg. yàlla na yàgg. na ko yàlla sàmm. yàlla na ko yàlla sàmm. sàmm leen ne sàmm leen yéen ñëpp. lii bu amul rek. ne fa tabaarakallaahu lii bu amul rek. du baax dara du baax nee fa tabaarakallaahu lii daal moom rek mooy li war a am. lii rek a war a am. ñëpp nee ñun ñëpp. ñu jàpp ci ñu jàpp ci. guddi guddi ak bëccëg ak bëccëg. noonu la ko sëñ Babacar Sy Mansour noonu la ko sëñ Babacar Sy Mansour bëggee. noonu la ko njaboot gi yëpp bëggee. noonu la njaboot gi yëpp bëggee. bëccëg boobu nee bëccëg boobu. suñu suñu bàyyi Serigne Fallou di ñibbi. bi suñu bàyyi Serigne Fadilou Mbacke radiyallahu anhu di ñibbi. góor gi daf koo gunge ba Touba. ne maam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu daf koo gunge ba Touba. mu ko ba gunge waat ko ba Tiwaawan. ñu wàcc di wax ah, wàcc nag di wax nag. nu ñuy def nu ñuy def. suñu bàyyi Serigne Fallou ni ko. suñu bàyyi Serigne Fallou ni ko. nañu dem ba Louga. nañu dem ba Louga. nga bañ a wàcc sa oto. nga bañ a wàcc sa oto. ma bañ a wàcc sama bañ a wàcc sama oto. nga wëlbatiku ma dem nga wëlbatiku ma dem laaj baa ngoog loolu moo di dox. nee fa tabaarakallaahu loolii moo mës di dox. waaye nag yàqkat yi duñ waaye nag yàqkat yi duñu fi jóg. duñu fi jóg. duñu fi jóg duñu ñu duñu am ndam mukk nag. ndax yàlla jeqi na ko ba. nee ndax yàlla jeqi na ko ba noppi. te mbiru yàlla dara du ko rax. te mbiru yàlla dara du ko rax. li ñuy wax ci tariqa. ne li ñuy wax ci tariqa. al muraadu bi tariqati huwa al ishtigaalu bi maqtadathu shariatu wal xaqiqati. li ñu namm ci tariqa dëgg-dëgg. ne li ñu namm ci tariqa dëgg-dëgg. mooy lu la sharia digal. mooy lu la sharia digal. ak xaqiqa ak xaqiqa. istagfiru rabbakum innahu kaana. istagfiru rabbakum innahu kaana. fadkuru llaha dikran. ne fadkuru llaha dikran. wa sabbixuhu bukratan. topp ko ba ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ale topp ko yaa ayuha alladina amanu kon la mooy tariqa moo tax xaaji malik aturqu kulluha ila rahmani musilatun musrikatun yaa jaami sunu maam ju baax jëni sawawun intama ila jeylaani aw intama li ahmada id kulluhum qatan mooy luñ ciy wax. ne kon luñ ciy wax. ku ci mën a def téeméeri laa ilaha illallah ci yéen. ne kan moo ci mën a def téeméeri laa ilaha illallah ci ñun. indiwuma sama oto waaye mën naa koo jël jox ko indiwuma sama oto waaye mën naa koo jël jox ko ko. Cheikh Thioro mënoo ko. ah téeméer. laa ilaha illallah mën nga ko. mën nga téeméeri laa ilaha illallah. moo gën a wóor. yow doomu kajoor nga. kon yàlla kon yàlla ñaata la. nee kon yàlla ñaata la. yàlla kenn la. nga bëgg koo def téeméer. nga bëgg koo def téeméer. Cheikh yàlla téeméeri ko def juum nga. yoon moo mën daal moo mën ne. tariqa yëpp moo tax tariqa yëpp benn lañ. ñëpp gi jëm ci yàlla. yëpp mi ngi bokk jëm ci yàlla. Euh, ixtilaaful aima nag rahma ak yi fi xewoon yëpp rek. nee ixtilaaful aima rahma ak yi fi xew yëpp rek. ñii ngi ci warsh. ñii ngi ci warsh. ñii ngi ci xafs. ñii ci xafs. ñii ngi ci xaaroon. ñii ci xaaroon. bi. ñii ba ne ci yonent bi sallallahu nii. nee kii jàngee nii. mu ne hakkada hakada unzil keneen jàngee ni kii keneen jàngee ni mu ne hakada unzil mu ne hakada unzil maa ngi wax ci borom te borom qur'aan a ngi teew mais maa ngi wax te borom qur'aan a ngi teew kon fa tabarakallahu mais kon fa tabarakallahu bokk yi damaa sob di wax rek waaye moo waroon a wax rek di wax waaye moo waroon a wax ndax kër gi këram la ndax kër gi fa tabarakallahu këram la maamam Cheikh Alhaaji Malick ne maamam Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu Pape Mbaye Ka moo ma ko nett ne Pape Mbaye Ka moo ma ko nett moo ñëw benn waaye dafa ñëw ci moom ni ko dafay jàng si benn waaye dafa ñëw ci moom ni ko damay jàng si mu ne ko adoom ah, mu ni ko aadoom boo toogee de am na lu fi yàlla boo toogee de am na lu fi yàlla def mu ni ko maam damaa bëggoon nga nekk sama royuwaay mu ni ko maam damaa bëggoon nga nekk sama royuwaay mu ni nag kii defar defar na ki ñu war a roy mu ni kii defar defar na ki ñu war a roy ba pare am naa lu ma xam ci moom am naa lu ma xam ci moom kaay ma jàngal la ko kaay ma jàngal la ko ñu bokk ànd ko ñu bokk ko ànd roy mu ne ko mu ne ko maam dama bëgg a xam yow a kan mu ni ko maam dama bëgg a xam yow a kan loolu tax ma indi wax ne moo tax ma indi wax ji mu ne ko mu ni ko maalik kat maalik kat sotteegul sotteegul li nekk ci moom yëpp li nekk ci moom yëpp mag ñee ko ci def mag ñee ko ci def bàyyil ba maalik màggale bàyyil ba maalik màggale nga xam kuy maan nga xam kuy maan ah kon ne kon moom mii mooy kan mooy kan mooy Bamba mooy Sëriñ Tuuba <laughs> mu jeex tàkk mu jeex tàkk moo ñu koy gërëm bu moo tax fa tabaarakallaahu sëriñ bi ne ñu ngi lay gërëm bu baax ne lii ñun ñëpp ci war a ñun ñëpp fa tabaarakallaahu ñoo ci war a jàpp. mu nekk benn loxo. nee nekk benn loxo. tàppoo tàppoo. ànd ànd. li fi mag ñi bàyyi. li fi mag ñi bàyyi woon. te tax ñu xam ñu. te tax ñu xam ñu. du woon seen bopp. du woon seen bopp. yàlla lañ fi nekkaloon. yàlla lañ fi nekkaloon. bañ fi jógee. bañ fi jógee. yàlla siiwal leen. yàlla siiwal leen. pour ñu nekk ay royuwaay. ñu nekk nag ay royuwaay. tàppoo. tappoo nekk benn ne tappoo nekk benn inna hadihi ummatukum inna ummatan ummatan waaxi fa ana fa ana kon bennoo la ñu bëgg ne kon bennoo daal la ñu bëgg munoon naa toog foofu ñu fekk ko fa waaye dikkam fii waaye dikkam fii dafay feddali lu bari lu bari ñu ngi sant nag maxtaar ñi ngi sant fa tabaarakallahu maxtaar lii yàlla na yàgg lii yàlla na yàgg jataay yii na ko sa wajur wa waxee woon. na ko sa wajur wa waxee ca weer ya ca weer ya. delloo si woon na ñëpp. delloo si woon na ñëpp. mbokk yi nan leen dellu si. wallahi delloo si na ñëpp wallahi delloo si na ñëpp. wax ba ñëpp dégg. wax ba ñëpp fa tabaarakallaahu dégg. ba lépp nekk benn ba lépp nekk benn. waatasimu bi bi xablillahi. ولا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف فأصبحتم الله أكبر القرآن